الحمد لله البديع الأكرم وصلاته أبدا على ما ينتمي الحمد لله البديع الأكرم وصلاته

البديل وجماله لمحمد ونواله سبحان رب العالمين دين النبي يلمدها دين النبي بها زوجني للمصطفى ما لم يكن لمقدم إن المفيد بزائر وبمقام لولا وجه النبي للمنتقى خير الورى وجه يساسم ظلمة المتوهم حبس النار wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare di diital ci nuyoo bi mu Muntaxa di ko ñaar su borom yàgg fi loolu te wéral ko noonu la ñuy siyaare tim sëriñ Moustapha Ndiagne mi indi fii ci ndigalu sëriñ Cheikh Diop moom suñu ceerno dégg ngeen di ko ñaan lu baax nag suñu boroom yàggal ko fi te wéral ko di siyaare suñu jëwriñ ji mu booleel muy Serigne Thierno mi ñu koy ñaan ci barke suñu Tuubaa taxawaay bi yàlla na yàgg ci barke suñu Tuubaa di soññi nag ñi nga xamante ne sañ naa ko ci ñoom ñoo xam ne ñoo bokk kër gi ñu gën a góorgóorluwaat gën a jaajuwaat ndax ku nekk amul lu sëñ bi nag te sëñ bi rek leen am te ku nekk nag sëb sëñ da ngay sagoo kon nag ñii ma ko sañ a wax maa ngi leen di soñ bu baax nañ gën a góorgóorluwaat takkaat suñu laxasaay bu dër lu sëñ bi woote ñu fekk ku dikk fekk nu ci ku dem tamit bàyyi nu fa ndax kat ab dong amul du ab sëriñam te sëriñ bi nag ñun ñun ñu dong lay sagoo nag ndax dal boo gis sëñ ba fa nekk ay dongaam la fa nekkal kon nag ñun ñi nañ gën a jàppaat bu baax gën a góorgóorlu bu baax ci ñi ma ko sañ wax xam ne amul lu suñu seex nag te suñu kat sëriñ bu jafe si sëriñ nag ndax yitte doo am mu dikk fekk la fa du xeeb yi tey kenn doo wéree dee ma nga fa doo amee xew jàmm nga doo amee ween xew ma nga fa su la gis ma nga gis yow di waxtaan ak yow ak kon nag ñun gone yi nañ góorgóorluwaat bu baax gëna a takkaat suñu ndigg gën a takkaat suñu laxasaay waaw ci ñi mako sañ wax dal ma ngi leen di wat baax fu way ma a nekk dal ñu ngi lay soññ ngeen gën gor góorgóorluwaat ci señ bi ndax amul lu señ bi ma ngi jégg lu baax ci kàddu di leen balax jërë ngeen jëf wa rahmatullah ñu ngi leen nuyu baax di leen siyaara di leen jégg lu baax di leen balax bu baax baax di jité ci nuyu bi nak Cheikh mohammed Mountakha xalifa la murit di ko di ko siyaara baax a baax baax rek du nuyu tamit sëriñ Serigne mustafa Mbacke Mohamed du ko nuyu du ko beral am nuyoom du ko siyaar bu baax a baax. di ko nuyoo nag ci tur Serigne Cheikh Diop moom sëñ Thierno Degger mais xam moo ñu yabal fii ci tool yi ñu ànd ko ak sama yëpp ñu ko kon ñu ngi ko nuyu moom it di ko siyaar bu baax a baax di ko jotal ne ko lim yónni woon kat am nañ yaakaar na defe nañ ko nam ko bëggee xëy na matal du yomb waaye nag nam ko ko waaye nag ñu ànd ko mbokk seex sin fi fekk mbokk taalibe bi ñëpp ñu ànd ko ñoom si biig xëy yendu ak ñoom ban wax ne liggéey bi yegg na ci côté yëpp ba sëñ bi woote ba yeewee kon yaakaar naa noonu mooy ndigal defe nañ ko noonu kon nag maa ngi ma ko àndal ñu ngi ñaan suñu defan ci ngërëm sëriñ Tuubaa lu wóor lu wér defan ci lu gawe suñ njort defan ci faju aajo saahira batin man nag ci sama turu tuuti maa ngi ci siyaare bokk taali bi ma àndal muy ñoom Cheikh Abdoulaye Guèye mi ak Baye Sall Guèye waa kër Baye Ndiow Guèye yi waa kër Baye Babel ak ñoom Thierno Thiam yi ak waa kër Nourou Saw yi ak ñoom Cheikh Saw ñoom waa kër ci euh, bara jaaxu Alaaji Jaaxu yi muy sëñ Alaaji Jaaxu Alaaji mi ak ñoom Nourou ñëpp moom daal ak ñi fi nekk ak ñi nga xam nekkuñu fi ñoom sëñ Seexu Ñaan Njaay waa kër Ba Njaay Ramata moom daal kenn desut waa kër Ba Abdoulaye Diouf ñoom numbe kenn desut kër gu ne daal ku ne jóge na fa ñoom Thierno Thiam waaw waa kër Ba Thierno Thiam ñoom ñëpp daal moom daal kenn desut kon ñu ngi nuyu ñëpp bayun kenn ñu ngi nuyoo ne ne leen nuyoo suñu bokk jigéen ñi ndax wax dëgg yàlla kenn du ñoom ba demee demee ci tool di liggéey ñoom ñoo fi desandi lépp lu fi war ci wàllu xéwal ñu toppatoo ko nan ko war a toppee ba biñ ñëwee dañ cee gisaa kay kayi suñ jot kon nag alhamdulilah ñu ngi leen sant bu baax soxna Njóoba soxna Kumba Daara soxna Nday Mbeen waaw bàyyiwun kenn ak ba ci xele yi kon daal ñu ngi sant ñëpp rek waaw di sant ñëpp di xam ne ab taalibe lii rek la am sëriñ bi ne ko aja mu jóg ànd ak moom ñëw ndax biig bi nu ñëw mett na lool ndax ñu ngi déparé Touba ci aw xiin daa ñuy génn Touba muy taw man sax wax yàlla sama euh, sama yaram mujj na daw lool xam naa ñii ay teel bi rek sëñ Tuubaa rek leen ñor waaw ñu biñ déparé Tuubaa ba ni agsi ci tool yi fii nga xam ne àll bu lëndëm këris la lépp am ndox ci ndox ci ndox mi la jaar kon nag wane ngeen ne sëñ Tuubaa rek moo leen ñor waaw jërë ngeen jëf yàlla na sëñ Tuubaa fay ba defal lu kawe seen jot tey lii ngeen fi def na ngeen xam mooy parmoso yi nga xam ne moom la sëriñ Tuubaa di def ci an bi la lekk waaw na ngeen xam lii promotion la promotion yi ngay seen eh, ci ci ci opérateur yi léeg-léeg ñu ne orange da am promotion wala ñu ne la eh, tigo da am promotion promotion ci Serigne Touba mooy lii te promotion yàlla moo ko njëkk a def ndax sun borom moo njëkk wax ci alxuraan ne man jaa bil hasanati falahu am amsaalihaa man yàlla ko def bemba def la fukk ko def bemba ba la junni kon loolu mooy promotion kon yàlla moo njëkk a def promotion kon lii nga xam parma ni nga xam ne benn jéego boo leen jéego rek donte di ngeen ñëw toog sax ni nga xam benn jéego boo ne rek dana wecc ci ay juróom-ñaar fukki jéego ci ay yiw waa ah, te loolu yàlla na ko sun suñ suñ tubaa nangul tey saytaan du ci man dara nag loolu moom saytaan mënu ci dara moom waaw ah, waaye nag nañ ci góor ga gën ko selal baax a baax waaw ah, di sant bu baax a ñi nga xam ne amoon na yéene ñëw te yàlla dogal na ñu am ngànt ba mënuñoo ñëw ndax ñëpp amoon yéene teew ndax mboxoon yàlla yëf yi daa mujj kawe suñu jot ndax suñ seex bi ñu yabal danañu ku mel ne yow boo demee ak diw ak diw am ñoo àndal benn benn nga xam da ko jàppoon ndaw yu ñu yabal rek waaye ban yëkkatee ban yëg xas yëkkati kàddu ñëpp a màbbandoo ñëwandoo kon nag lii alhamdulilah kawe na jot waaw ah, métti na lool waaye nag alhamdulilah ndax lu métti moom moo mënta ñàkk ndax mooy tax nit am lu baax kon yàlla na su ma defal li koy seen jotu defee leen ay xéewal yu yaato yaatu kenn ku ne daal li yitte ji nga fi andi yaa xam sa biir xol lay sa yitte yàlla eh, yàlla xam yàlla xam xam nga yàlla xam na yàlla na ko yàlla saafara ci barke Seexul Xaddim ci saahir nag ci baatin waaw ñu ngi nuyu ñëpp moom daal bàyyiwun kenn ku nu ku tudd rek xëy na xëy lay fàttoo waaye ñu ngi sant ñëpp daal di wax ne yàlla na suñu boroom defal ñu ay ngërëm yu kawe suñu jot defal ñu addara yu kawe suñu jot di barke Sall Xaddim di sant Serigne Cheikh Diom nag di ko ñaanal bu baax suñu ba guddal fan yi ndax kat lii wax di yàlla tawfeex la waaw ah, tawfeex la ndax euh, maanaam euh, toog ba si yàgg xelam na yar ci yow mu ne leen dama sëñ bi kat damaa jox ndigal ndigal la ma joxaale ngeen ngeen ne yàgg leen ma ko la tawfeex la ndax ndax fi ne sëñ Sidi mi bay tool bi moo ko bay sëñ Moussa Ndiagne mi ngi ko sant na ko sant Cheikh yi ngi ko sant waaye ñu ko liggéey ñu am tawfeex bi kon alhamdulilah ben yàlla boo ci wax bi kon ci sant sëñ Cheikh Diop bu baax di ñaan suñu ba guddal fan te yokk wéri te yàggal ko fi lool ay at yaat nag ci barke Seexul Xadim te yàgg ko ànd ak moom nag ci barke Sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf di waaleykum salaam wa